boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo

يبيض يوم أسلمة القلب أباه من يتلو الكتاب لا يقلد الحساب لا تناهي بعد لكل من له مقول أن وسيلتي هو الرسول ngeen jëf mbokk yi nga xam ne kon yéen a ngi ñuy topp ci Istikhama TV ñu nekk fii ci Daarul Karim ci bisu euh, màggalu Laylatul Qadr te njabootu Cheikh Modou Fati Xari di ko def gannaaw ba ñu ko jëlee seen waajur wa moom it gannaaw ba mu ci jëlee ndigal ci moom Mamadou Moustapha jaar ci Cheikh Mamadou Fadal jotaay bii nag ñu ñëw ci sëriñ ji daal yi Mbàkke moom sëñ Modou Fati Xari wante biñ ñëwee ñu fekk fi ay kilifaam Cheikh Mamadou Mamoun Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadal mu ngi ni toog fekkoog sëriñ Maodo Cissé mi nga xam ne damay faral di wax ne moom ambassadeur la ndax ni ko sëriñ bi waxee léegi rek bi mu koy nuyu moom fu lislaam xewlee rek mu jóg te loolu lu am solo la kon dañuy bàyyee kàddu gi rek sëriñ Maodo mu yëkkati kàddu yoo xam ne dana ko leeral mu jëm ci bokk gi ak diine ci wasalaatu wasalaamu ala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi santaat yàlla bu baax bi yàlla mayaatee ñu ñëwaat fii tey ci daaru karim ci dëkk bu tedd dëkk bu sell boo xam ne magum islaam moo ko sosoon muy maam sëriñ Touba. bàyyi moo Modou Fatick xari ñëw nekk ca foofee ci ginnaaw ba ka maam ma sàmba joxe ndigal mu taxaw fi taxawaay bu rafet nekk fi ak njaboot gi bis bii nga xam ne nag mooy leetu xadri mu nekk bis boo xam bu tedd la yàlla dogal mu féetewoo ko mu di ko doxal ma mën a seede lu bari ci ki ki nga xam ci ñi nga xam ni fekk naa leen fi ma ñëw fekk fi sama doomu baay sama xarit sëñ Modou Mamoun Mbacké mu sama baay lu Mbacké ñëw seet si sama rakk sama xarit sama soppe seen sëriñ ja daal yi mu bàyyi bàyyi Modou Fati Xari bàyyi Modou Fati Xari nag ak Alaaji Si dañu noon ay xarit ay soppe ma daan ànd ak moom daan ñëw Touba ci Baye Abdoulahat saa yi fa ñëwee dañ fa daan daje buñ fa dajee buñ fa jógee ñu dem kër Baye Modou Fati Xari Baye Modou Fati Xari kontaan lool bég lool loolu mosul deñ ba ñoom ñaar ñëpp ñu dem àjjana tey jii ma ñëw fii fekk fi sama doomu bay bii bi ma ko nuyoo léegi dégg ngeen la ma ko wax barki démb dama ko seetaan ci télévision bi muy waxtaan waxtaan wu rafet waxtaan woo xam ni eh, alhamdulilah rabbil alamin loolu la ñëpp doon taataan te ñëpp dégg nañu loo xam ne lu ñu mën a jariñoo la man yàlla xam na ni bariwul sax lu may toog ci télévision mais bi ma ko gisee moom dama toog seetaan ko déglu ko conférence boobu macha allah ma bég ca lool nag waajuram Baye Fallou da doon kenn ci El Hadji Amar Cissé am na benn bis mu woolu ko loolu en 1964 la bi ma ñëwee biñ ñëwee booba kër Baye kër bay fallu gi tey booba baraag la baraag a ngi fi mu ñu fekk mu tëdd ci benn romb jaan mu ñun ñu ko sëñ Amar Cissé agsi na naka mu agsi naka mu jóg daal ni ko nee leen ko mu agsi mu agsi rek daal di koy mu daal koy tatafu teg ko teg teg teg ko fii ci mbaggam kii itam mu teg ko fii ci mbaggam ñu ànd ñoom ñaar mu ni ko toogal ci kaw lal mu ni ko déedéet mu wax wax mu ne ko déedéet ñoom ñaar ñu toog ci suuf fekk mi ngi ma jox ay teraanga teraanga ya kaamil alxuraan ma nga ca ay sajaada nga ca parfum nga ca mu ni ma gees mu ne ma Maodo ma ne ko labbe ku mu ma jox ma sama yóbbante boobu yi ma daa di koy jox mu jox ko Baye Fall Baye Fall jël ko benn bu ne mu jël ko taf ko ci dënnam ah lam ko jëkk a wax moom bay fallu mu ne ko Amadou ni gees ci wetam wetu ndijooram mhm. ni ko Amadou lii lan la mu ne ko kii day dafa mel ni waxekaay yooyu ñuy wax rajo la waxikaayu jamono yooyu mu ne ko waaw xam nga tax ma jënd ko amu ko mu ne ko de mu ko yow sa alxuraan ji rek yow rek yaa tax ma jënd ko yow rek yaa tax ma jënd ko waaw mu ne ko yow rek ko mu ne ko amul xam nga ñaata lay jar mu ne ko déedéet mu ne ko fukki junni boobu ku ku lu sëñ Fallou yoroo fukki junni <laughs> fukki junni ne ko sa alxuraan ndax fajar gu nekk yow rek lay déglu mu ne ko nag li ma lay doyee dafa am loo xam ne dafa yër ci sunuy diggante te buñ ko bàyyee mu agsi mën nañoo taqale tey la démb la suba la ginnaaw suba dafa xew muy affaire yi weer wi gis nga affaire yi weer wi du léegi de nit ñi dañoo ko defe ni léegi la mais yàgg na mu woolu ko nag mu ñëw mu ni ko li ma bëgg mooy nga doxal ma li ma lay wax li ma lay sant ci ci kër diina yi suñu njabootug diine yëpp tey jaaral ma ci sama mbokk mu baax ma Alaaji Abdou asis boo demee nga ne ko abdu Sëriñ Fallou ne bëgg na lu fa leerati na nga ko wax te loo ko wax mu def ko te xam naa ni fiit lu fa leer su ma ko loo ko waxee nga wax ko Abdou Abdou dina ko def mu ni ko boo fa jógee demal ca Baye ca ca Baye euh, Alaaji Ibrahima Niass ca Kaolack bañ fa jógee bañ fa jógee keroog keroog Baye Alaaji Ibrahima ñas bi ñu ñëwee ci Baye Alaaji Ibrahima Niass mu wax ko papa wax ko yóbbant bi dafa kontaan a kontaan ak kontaan ba jël dugg ci biir génn mbubb moo xam ña ngi ko ñaw ca kaw ba ci suuf solo ko sama papa ni ko nag lii laa lay dox décoré ba ñu jógee fii keroog ci Touba booba yoon yi melul nii booba diggante bi yëpp ay àll la ba ñu agsee ba piir sama papa ni chauffeur bi continuer ñu dem Tivaouane bi ñu fekkee Pape Alaaji Abdou Aziz ci kër ga moom it mi tëdd ci benn romajaan mel ni ñoom ñaar dañ ko dañ ah, ko dañ ko dañ ko dégg yégoo mu ne ko si dama laa demaloon Touba de mu ne ko ana sama mbokk mu baax ma sëñ Fallou mu ne ko waaw mu ne ko ma nga fa mu ne ko d'ailleurs sax moo ma yónni ci yow daal di koy wax yóbbante bi sama papa El Hadj ku ne xamoon ne li mu bëggeen ci ni mu bëggoon nekk benn ak bëgg lu baax mu daal ni bërit ko siisee sama xol sedd na ndax mosoo ma lu ma neexee ni li sëñ Fallou wax voilà ñu jóge fa dem Baye Sidi Lamine Kunta moo fa nekkoon booba ci Ndiassane ñu jóge fa dem Ceena ba Baye El Hadj Ibrahima Seck moo fa nekk ñu jóge fa dem Yoff bàyyi ma ñoon lay moo fa nekk ku ci nekk maag sama papa ñoo ànd keroog ku ci nekk mu wax la yóbbante bu waaye ku ko ku ko ci wax rek rafetlu nga ko kon nekku benn gii ak li nga xam ne moom la sëriñ bi di rafetlu léegi di di ma ko seede ñun sasuñu ko ca waajur ya la ñoom it ñu nekk ñoo xam ne ñu neex a ñu neex ñu neex a àndal lañu man ku ma xam-xam ni fii kër yëpp am naa leen ñëpp am naa leen fépp xam naa leen Sénégal gépp sax laay wax macha allah sant naa ci yàlla kër diine yëpp aw ma ci frontière loolu yàlla defal na ma ko waaye nag fii ma ñëw di sama kër fekk si sama rakk ju baax ji di sëriñ Yadali muy ku baax sëriñ bi maa ngi la koy seede di ku gore ku ma bëgg ku ma fonk ku ma jox cër xam ne magam laa xam ne ñoo bokk bàyyi bu yàggul rek am na fu ñu daje ci benn takk waaye cër ba mu amoon yëpp daf ko jël jox ma ko daa di fay seede ca mbooloo mi yéene yu rafet yu mu am ci sama diggante ak moom voilà kon nag suñu ñëwee fekk la fi Mbàkke danañ la ko seede te nga xam ne tey yaay kilifaam ah ñu seede la ko sant ko gërëm ko ñaan sa borom yàlla def yàlla yàggal ñu te yàggal ko fa tabarakallahu e sëñ Mamoun yow itam ñoo ngi lay sant di la gërëm e li ma wax léegi rek yow kenn mun laa dut baaraam ci loo xam ne lenn loo xam ne du kenn mësu koo gis jàpp nga sa njàmbur nekk nga ci sa sariya nekk nga ci sa lislaam nekk nga ci sa doonay waajur nekk nga ci say say say doonay maam kon yàlla ma am pay yàlla na yàlla fay barki dem bi ñu la dégloo sa nee naa la sama xel dafa dem ci la sa pap amul siise daan wax daan wax ne mag mu ne am nga matt goo xam ne ma nga ci àll ba te boo sañoon di nga am ku la ko jëlali mu ne bu suñu ñaan nangoo ca ndaw ñi rek te dinañ jëliñ na matt yi waaye yow Mbàkke yaa ngi jëleen ji nga matt yi mag yi waaye matti sañ Fallou jëli nga ko matti maam sëñ Touba jëli nga ko dem démb ba ngay waxtaan ñëpp déglu la ku bokk ci lislaam rek siggil nga ko yàlla mi am fa yàlla na yàlla fay asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> sëriñ Mouhamadou Mamoun kon dégg nga kàddu yi nga xam ne moo tukkee sëriñ Maodo yan lañ ko war a delloo <laughs> pour ko ko dañuy wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ moom kàddu yi dafa matale kaar ba daanaka du neex a dolli lenn xanaa dañ ciy barkeelu rek kàddu yu ziare kàddu rek ak sant rek kàddu yu rafet na génne na ci xol te it bégg nañ ci loolu macha allah te matale na itam kon dañ koy nuyu di ko ziare di ko yóbbanti nuyoo ci ziare xadara ba mu jógee sëriñ Mansour ak ak njaboot gi gépp rek moom lii lañ ko xamee ni dama ko dañ ko ne lu xew ñu gis la waaye du ñun rek waaye fu islam xew lay gis la waaw loolu ñëpp seede ci moom waaw ñu ngi koy nuyu di ko ziare di ziare sëñ Yeddaal yi bu baax mi ak bokk ci tedd fekk yëpp rek eh, tey sant bu baax ci teew gi moom sañ eh, Maodo moom kàddu gi dafa matale ba daanaka neexuta dolli dara waaye dañ koy sant ak it kàddu yi jëmale ci ñu tam sant nañ ci loolu loolu ab soññ la donte xamuñu lu ñuy wax sax waaye dañuy jaxasee kat li may wax dabbu daaxi rek dabbu daaxi feeñal yéene rek waaye waaye li ma wax ab soññ la waaw te historique bi mu fàttali itam ci histoire weer wi loolu dafa dafa yu mel noonu dafa ma di fàttali ndax ñu xam ne Sénégal li mu ko waxee mbir mi beesut te tey du Sénégal rek xam nga Sénégal dañu jàpp ni fii rek la xew waaye du fii rek Arabie Saoudite gi nga xam ne danaa ko tudd dañuy depp ne mooy capital l'islam dafay am fii ne am na ñoo xam ne dañu warandoo ak waa Makka ak waa Madina ay ay chia lañ am seen i sëriñ leen déglu leen topp waaye comme yoruñu média ya ñu bari dañu ko xam ñaari koor dafay am ñaari koor ñaari tabaski dafay am waaye ñun li ñu gis yi mooy li ñu génn télévision bi rek fekk leen na nga xew ci biir donc du lu bees waaw du lu bees waaye day lu compliqué nag te du Sénégal rek fu bari ci àdduna si la ndax texte yi ko di ko régir moo day moo demee noonu

gis nga effort yi mu wax ne sëñ sëñ Fallou wax na ko suñu waajur te laaj amati si biir mu dox ko ci gannaaw ñooñu ba léegi la sottiwut nag da nga xam ne dañuy am yaakaar di ko dox rek waaye bu ñu ko yàkkamti waaw du dug réeroo dug noonoo islam bi mel noonu te yàgg na ko am ca ba Damas da ko daan mel ca Bagdad da ko daan mel ci Maroc gi da ko fi mel Xayrawaan da koy mel foo dem ci su koy mel dañu la Arabie Saoudite gi nga xam ne moo fi yor doole ji yor baatul waaw waaye waaye bu ko defee nag dafa laaj teey laaj ànd ànd ak dal ànd ak ànd ak jëfandikoo xel rek waaye jërul jërul noonoo jërul réero jërul jërul waxante lu noona waa ndax ndax ndax ndax la wuute gi ixtilaaful ulama rahma la sallallahu alayhi wa sallam wax ne borom xam-xam yi bu ñu wuutee yërmande la te lii sax wuute amu ci maanaam léegi xëy na ñàkk déggoo ak communication bu des rek la waaye ñëpp lu baax lañ bëgg kon nag bu ko defee rek bu ñu fekkee ci dëkk bu tedd bii nga xam ne sëriñ baa ngi ko tudd bañ ko tudd ko daarul karim kon karam boobu rek yàlla nañu ci yàlla jàppale ñu gën ko am tey tey tey ak suba maa ngi nettali ndokkeel soxna jaar sànq naa ko ngeen ndokkeel ci dëkk bi ngeen ko dundalee ndax li am na solo lool ndax li war di wax mu jiw leen poussé mu réer sëñ Modou Fatick sëñ Massamba moo ko sanc ci ndigal sëñ Touba xam ngeen histoire ba sax na na nam tàmbalee woon sëñ Fallou ak sëñ Massamba ak sëñ Roqee Bousso ak mag ñu bari la sëñ Touba woowoon ne leen ci njaareem booba ne leen bu ngeen demee ba bu ngeen dem ba ci aneeri Touba yi aneer aneer mooy li xaw a génn tubaa maanaam banlieue Touba ngeen sanc fa ngeen def fa barab yu ngeen di bu ëllëgee bu jumaa ja àggee ngeen fay jógee di julli si ajuma waaw nee na sëñ Mourou Moussa ca baax ga ne ko ah sëñ Fallou mii am na feex ndax sañ ci ne fa ñuy wax ndindi nee na sëñ ni ne ndindi mu ne ko noonu ko hakaza ne loolu moo tax sëñ Tuubaa sëñ Fallou soppiwu ci dara parce que mu ne bi xam nga baatu ndindi baatu pël la te ak turu dégg la na ko ba noppi ne ba ko ba noppi ne hakaza moo tax tegu ci dara dafa bàyyi dëkk ba ndindi rek waaw nekk fa naan daaru ndindi rek Tuubaa ndindi rek daal doo bàyyi ndindi rek tout court waaw waaw ba ñëwee nag la sëñ sëñ Cheikh Massamba fi Daaru Karim sëñ ma roqee bu sa sëñ daarul xadim cheikh manu sa sëñ sëñ xusnu ma ab ñu wax tindóodi te di ko xusnu ma ab loolu 1913 la waaw ah, waaw fekk na sëñ Fallou moom mu sañ ci ndindi dèjà kon booba kon lii histoire la te ndigalu sëñ Tuubaa lañ ko def waaye bu ko sëñ Masamba sañcee déel fi sëñ Mudu Fati Xari mu koy dundal boobu melut nii waaye bi ngeen ñëw gannaaw dundal ko ba mel nii loolu dañu leen ci sant leen ci gërëm te xam ne uh, mujj leen posé bu mu réer yàlla nañu yàlla defal cant rek te liñ fiy sabab lu lépp yàlla defal ko te jotaay bi ñu yàgg fekk ay yoon suñ sëñ Maodo ñu ngi sant bu baax rafetlu kàddu yi mat na sëkk moom xanaa dañ ne woon ñu barkeeloo ci lii rek barkeelu siyaare waa waa siyaare ko waa dëkk bi di teg siyaare bi nag ci loxo sëñ daal yi nga xam ne mooy suñu buntu ci kër gi bari ci démb rek ci joxe cër googu ngay wax dafa am daara juñ euh, jamono juñ doon def ca boori mbuur mm-hmm. moom mi fekk soriwut ak daaraam ji gi nekk garage bente ñi waaye liggéey bi lépp moo ko doon taxaw mooy sañ ci mbooloo ma bu waree laabal barab ba moo koy taxaw mooy taxaw liggéey ba bi ñu ubbi jumaa ji liggéey ba yëpp ba rafet te mat ko sëkk macha allah kon nga xam ne kon ni mel ci yow ñu baax ñëpp waaw mi moo ko taxaw liggéey magal gi loolu xam te magu fi kaar <laughs> kon loolu loolu cër la waaw loolu cër la dañu ko cat rek lafal ko cat lafal ko njaboot gépp rek te ñu fekk ko at yu bari lool rek barke borom Touba sant nañu baax a baax yéen presse tam ñu leen di gërëm nag ndax ndax itam li ngeen di jottali mënu leen ñàkk ndax lu ñu mën di def itam lu rëy rëy bu ngeen ko jottali nit ñi dañu ko xam te te jottali gi da ciy baax ndax dañu xam ne am njàngale rek la ndax suñu kër yëpp ay daara la suñu kër yëpp ay jumaa la ay jàkka la kon liñ fi def dañ ko war a xam ndax man cee jëriñu waaw waaw kon ñu ngi sant bu baax a baax rek waaw jërë jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yàlla nañ ko fekk déwén yi bari xanaa day jox suñu daal rek bu tëjal ñu kàddu yi waaw waaw la julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam hmm. santaat sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba baax a baax ñu nuyu bokki jullit yëpp di nuyu Cheikh Mahamadul Mamoun mi moom Cheikh Mahamadou Fadal di ko nuyu ci turu Serigne Fallou mi nga xam ne mooy sëñ Maodo faati Khary tey nuyu itam sëñ Maodo mii nga xam ne dafa ñëw tey ci këram di kër baayam sëñ Maodo faati Khary di kër xaritam sëriñ Cheikh tam yàgg fee ñëw loolu itam te saa bu ma yooyu ci wetu sëriñ bi man la fi fekk dundal si waat loolu tey jii sëriñ bi sëriñ Fallou ngi leen di nuyu bu baax di leen wax na seen teewaay ci dëkk bi fierté la ci moom. am na ci mbégte lool Cheikh Mamadou Mamoun kër gi nga ñëw mooy sa kër ga mooy sa kër ga sa kër ga euh, jataay bi itam moom mooy jataayam ba diggante ñaari waajur ya ku ne xamoon na ko euh, sëñ Mamadou Fati Xari ak Cheikh Mamadou Fadal jataay diggante mag ak rakk la woon muy mag ak rakk yu bëggante doo doon diggante taalibe ak sëriñ yu bëggante doonoon diggante ñaar ñu nawlonte doonoon diggante ñaar ñu doon jàppalante lu ci ne am naa ci firnde donte ci ñu mujj ña laa bokk yor naay leetar yoo xam ne sëriñ Fallou koy bind sëñ Modou Fati Xari di ko sant ak di ko liggéeyloo ak di ko ñaax ci mbaax gi mu nekk mu continuer ci sëñ Modou Fati Xari am na turuñ koy woowee docteur sëñ Fallou ko ko njëkk a tudde booba sëñ Modou dafa tukki woon Mali demoon seeti um, sëñ Fanta Cheikh Cheikh Fanta Madi la sëñ Modou seeti woon doxalee soxlaam am fa juróom benn weer keroog bi mu ñëwee daa yegg si rek sëñ Modou yónnee sëñ Fallou yónnee mu ñëw yegg si mu ne ko Modou da nga faa yàgg xanaa xamoo ne yaay docteur dëkk bi te docteur du tukki da nga faa yàgg keroog la sëñ Modou Fari xëri jël baatub docteur boobu ñu koy woowe docteur bu lislaam mun na ci dikk dëkk bi di def di dindi digganteem ak Cheikh Mamadou Fadal sëñ Fallou daf daan wax bu sëñ Modou ñëwee ñu bari yeewi ko am na sëñ bu mu daan tooñ seen doomi bàjjen la sëñ Modou xabaan buñ ne sëñ Modou ngi ñëw mu daal di mu ne ah, ko cim moom da ko daan tooñ ma defoon ne sëñ Modou Fadal xëree ñëw moom de bu ñëwee ñu bari yeewi ko ñëpp ree nga xam ne xar yi ci kër gi sax sëñ Fallou ak sëñ Mourou Fari xar yi sëñ Mourou xabaan lañ ko daan tuddee muy ak mbokk gu neex sëriñ Mourou ku jàppale woon sëriñ Fallou la wutoon na ay daara yoo xam ne da leen a sàkkoon ay ponkal yoo xam ne bu nawet jotee ñu liggéey indil sëñ lu ñu def ci jumaa ji bu noor jotee ñu takk seeni laxasaay di ay maçon ba jumaa ji yegg lu mu mos a liggéey ci ay tool itam ku ñu ñoo lay wax sëriñ Abdou Dieng moo ma ko nettali ci magi taalibe la bokk nee na bu ñu mosaan liggéey ci tool yi ba yegg si ba indi li ñu am sëñ Modou day wax ne ko ab demaatal ca daara ja nga ànd ak jëwriñ yi yëpp ngeen dem ci sëñ Fallou joxal ma ko ngir yéen ngeen xam ne sama xalimaam man seen seen mbay. nga xam li ñuy liggéey ñoo koy yóbbul seen bopp. moo tax kon dana ànd liggéeyal yàlla rek waaye man maa leen man jàmbaar jooju nag moo la yàlla féetale woon dëkk bii. ci ndigalul ay kilifaam ginnaaw bi fi sëñ ma sàmba jógee mu ne fii tam la sëñ tubaa santaane woon mu nekk ci ndax ndigal dëkk bi ndigal li ndigalul sañ ci leen ko dafa liggéey ak a jaamu yàlla tey julli si fi man guddig àjju di julli si fi man àjjuma loolu la sama mag ju baax ji wax léegi gis-gis booba bi ko sëñ tubaa di wax du woon ñëw rek di julli si àjjuma ndax jumaa yaa ngi fi jàkk yaa fi ñu fi julli àjjuma te xamoon na ko xam nga julli si googee mooy lan mooy bu ngeen demee ba nekk tuubaa lépp nekk Daaru Karim ak Ndindi bu leen fàtte ne sëñ Touba ngi fi kon addi yi ñuy dajale bu ko ma Massamba dajale deux cent millions waaxu wuti Cheikh Mamadou Mountakha jox ko ko loolooy julli si ga dañuy bañ nu toog fii di xalifa la sëñ Mountakha am xalifa xalifab Daaru Karim am ko la wër ndax sëñ Mountakha wër daaru Daaru Karim nu toog ne nii fàtte sëriñ bi loola lañuy bañ kon julli si ga mooy loola julli si ga loola kon nag nu fas yéene di julli ji bu baax di julli ji bu baax sëriñ Mamoun euh, ñi ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan njabootug sëñ Modou Fati Xëri ñi ngi la koy ñaanal di ko ñaanal sëñ Maodo mii di wax ne yow te yoonu murit nga man ku ma aman ku ma am lanteel ay alaaka doob dof loolu ñu bari xam nañ ko euh, fi ñu yoonu murit gépp fier nañ ci yow barki démb waxtaan wi nga def ci Daarul Muxti muy Al Wafa ñëpp teewul nañ ko waxtaan wa am na solo lool te loolu lañuy ñuy séntu ci yow noonu nga waxe itam ci yàqu-yàqu jamono ak ñii nga xam ne dañuy xam alif ak laam rek bëgg a commencé yàq sunu mag ñi ñooñe noone nga waxe ca ñoom sa waajur wu tedd ba Cheikh Mouhamadul Fadal da cee mos a waxe da cee mos a waxe ndax nit daa ñëw ànd ak doomam ñëw nuyu Cheikh Mouhamadul Fadal ne ko moom da dama ko yóbbu woon mu dem ci réewi arab ya jàngi ba jàng na ba sori suñ Fallu ne ko waaw waaw jàngi nga ba ñëw mu ne ko waaw mu ne ko ndax dégg nga naxu mu ne ko waaw dégg naa naxu mu ne ko yow koy xamoo dara cam da nga naan dégg naa naxu wa waaw ah, ndax samiatu samiatu nahwa mafulun bii la waaye gis nga na ko sëñ ba gàggan ni ma la ko cam yow koy xamoo dara déggoo dara waxta mu jàng ba ñëw kon da naan dégg naa nax wa loolee nag nga toj keroog waaw jumla boobu rek mu mu mu leeral rek loole nga leeral keroog yoonu mu rek bépp bit ci kontaan ci jërëjëf sant nañ leen bu baax di sant mboole bokki taalibe yi ñu fi àndal sëñ dàmbay mii ab taalibi la ci kër gi cadre la Sonatel ku jàmbaare kuy taxawu bis bi taxaw bis bi rakkam ji docteur moo nekk danti su Mbàkke nekk fi moom itam ñu sës ci man di ma jàppale ci liggéey bi ma sëriñ bi dénkoon ci laylatul xadar moom mi bi laylatul xadar gi jubee ma ko woo téléphone ne ko laylatul xadar daana def bu ma saana jub dañuy woo taalibe yi yëgal leen ko wala ñu yónnee fa waaye ren nag yónni kenn dañuy toog rek xaar fi sëñ Touba waaye wax joojee lu rëy ci moom la ndax lu ñu daan def di la seet si boo gisee ñu def ko te seet si la te yëgaluñ la ko di nga xoolaat sa bopp ne waaw man lu ma def kon looloo toxoon ma woo wax la wax joojee ñu ngi lay eh, ñaanal bu baax di la dink nag sunu mag ju baax ji nga xam ne amuñu lu ko ëpp si yoonu murit ñu ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi foo ko gis na ko nga xam ne gis nga ma gis nga sëñ Cheikh gis nga sëñ Fallou gis nga sëñ Abdou Lahat barkalla jërëjëf ñu ngi leen di sant yéen itam bu baax istaxaama taxawaay bi rafet na lool depuis ci CDD ba ci waxtaan yi ci waajtaay yi woote yi yooyu yëpp yéen a ngi ci yàlla na leen yàlla fay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Idaly Mbacke jërëjëf itam sëriñ Mouhamadul Mamoun Mbacke eh, jërëjëf itam sëriñ Maodo Cissé yaakaar naa kon mbokki jotaay bii mën nañ ne jotaayu lislaam la jotaay bi nga xam ne ci la ñuy dundee laylatul xadar euh, sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacke toog nii di njabootu Seexul Xadim sëriñ Yadaali Mbacke nii di njabootu sëriñ Massamba tamuy genn njaboot sëriñ Maodo Cissé toog nii di njabootu Pire tamuy genn njaboot kon tey jii jotaay bi jotaayu lislaam la ñuy waxtaanee nag bés bu màgg muy laylatul xadar ñu ñaan sama yàlla defal ñu tawfeex yàlla yàggal leen fi te wéral leen kon tàlla rek sëriñ bi ñaanal